bokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci point bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jeudi 21 avril 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay ma ci ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay siyaare. ziar la bu wër Omar di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu te dalal leen jàmm ci seen xibaar revue de presse. ñu ubbee ko ak journal bu Le Quotidien mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni mooy wàccaayu législative yi. fi mu toll nii nag am na ndogu bu am solo boo xamante ne ni waa Bennoo amal nañu ko ci seen biir njiitum réew mi ak i ñoñam comme ni nga ko waxee dem suñ jiitum réew président Macky Sall dafa woote woon conseil des ministres waaye nag ma ngi leen woo woon ca diwaanu pale ba fa la dajee pendant de temps di waxtaanee loo xamante ni ci wàllu euh, nguur gi la saxoo waaye tamit nag ci élection yi nga xamante ni ci la ñu jub si foofu la ñu ndogoo d'ailleurs sax nataal yi moo ngi nii ñu daal di fësal ci journalu Le Quotidien ba tax na daal la nga xamante ni moom lañ fa tëkkee muy kàddu képp ku fa teew mooy que ne bu ñu booloo rek am doole waaye bu ñu tasaaroo rek wàññi li nga xamante ni moom moo di seen kattan face pas l'adversaire yaakaar naa ne am na solo Amina Ndiaye ndogu gii de buñ ma ci invité woon ma dem ndogu bi moom macha allah comme ni nga ko gisee waaye nag li fa ëppoon importance mooy li ñu doon waxtaanee lépp loo xamante ni wàllum réew mi la jub si suñu njiitum réew sax daan nay évoqué waaye li nga xamante ni moom moo di kaaw asu soxna bi di yëgle ni médecin boo xamante ni amatoo diplôme ci réewum Sénégal euh, jaratul ñu lay engagé ngay faj wala sax dañuy contrôler bu baax a baax li nga xamante ni mooy sa parcours. kontaan nañu ci boobee décision yaakaar naa ne yéex na koo jël waaye tamit baax na am na solo Amina leneen li nga xamante ne nii fës na loolu ci le quotidien mooy mbirum banque BCEAO ak waa Wave. coole nag nee na ci réew mi. nee na ci réew mi loolu la ñu wax nee nañu diggante banque BCEAO ak waa Wave jamono ji établissement de monnaie électronique boo xamante ni ñoo ngi koy waxtaanee waaye Wave fa nga xamante ni fa la samp ci réewum Sénégal jamono ji kàttan la fi la fi la fi am ak doole ba tax na daal comme ni ñu ko gisee ñoom ñaar loo xamante ni c'est à régler la. xale ñu ne Wave mooy le choix du peuple. ba tey dañuy desandi Amina ak journal bu Le Quotidien ak ñun. ci li nga xamante ne nii moom mooy yéen ci doomu réew mi nekk ci dowaanu Amérique ci latine bi di fa dund ay jafe-jafe yoo xamante ne ni métti na lool metti na lool jafe-jafe yu tar sax la ñu daal di euh, dund ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di nekk ay migrants trafic de migrants nag tey moom la ñuy waxtaanee ca diwaanu Amérique latine benn sénégalais boo xamante ni moom nekkoon ci ab réseau bi euh, di euh, buub ay nit yu baree baree bari di leen wax ne da leen di yóbbu wala sax bu leen di jaarale ci ay yoon yoo xamante ni ñoom mën nañ cee ñàkkee seen bakkan moom la journalu quotidien di alerté. am na solo Amina Ndiaye loolu itamit lu ñu jara lu jara def taxaw seddu la parce que doomu réew mi Amina ñu ngi dund ay jafe-jafe partout dans te li koy waral mooy seen ay moroomu doomu réew ñoo leen koy teg ñu bàyyi ci loolu noonu xel libération daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni moom mooy mbirum assemblée nationale Barthélemy Diaz nag lañ ci fësal mu ci yëkkati ci ay kàddu yëkkati na kàddu moom Barthélemy Diaz maire ville de Dakar jamono ji nee na wàllum assemblée nationale mënatuñoo bañ sax li nga xamante ni moom moo di benn cohabitation te bu ñu moytuwu lekk suñu kanam dina ci am leneen li nga xamante ne ni tiraillement la ko journal bi tuddee tiraillement judiciaire entre Auchan ak Fisk. Auchan ak Fisk nekk na loo xamante ni c'est une longue histoire waaye dafa nekk loo xamante ni nag mi ngi continuer di yàgg ba suñu joon yàlla tey jii ba tax na diggante au Auchan ak Fisk yi ñoo ngi continuer euh, di xëccoo li nga xamante ni moom moo di problème bi nekk seen biir ba tax na journal bi daal dina ñëwaat ci détail yëpp tey journal Libération la page 3 nga koy fekk. leneen li nga xamante ne Amina Ndiaye di nga ko fekk ci page 3 bu journal bu Libération muy vente illégale d'armes classées dans la cinquième catégorie. maanaam jaayam arme goo xamante ni ràññee nañu ko ci diwaanu Parcelles Assainies comme ni nga ko waxee rek vente d'armes illégale boo xamante ni ràññee nañ ko ca diwaanu Parcelles Assainies looloo waral waa division des investigations criminelles daal di def descente sur le terrain ñoom waa ak waa DST ñoo nag fekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy defkatu ñaawteef yooyu la mais dans le sac daal di leen di teg loxo waaye nag naka la ñuy def ba teg leen loxo renseignement yooyu ñoo ngi ko am ginnaaw bañ leen infiltrer li nga xamante ni moom moo di seen réseau bi di leen topp benn par benn comme li Olof Njaay wax nank-nank mooy daa jàpp la ci li nga xamante ne nii gis nañ ko Amina journal bi ne saigner à l'intérieur wala saigner de l'intérieur mbirum osmos millions yi bari na ci lool comme ni nga ko waxee million yi daal dinay bari lool lu toll ci 500 millions de francs CFA la ñuy waxtaanee yoo xamante ni dafa jékki-jékki ni mes ni neen tañ maanaam 500 millions yoo xamante ni dafa jékki-jékki volatilisé ba tax na daal gérant bi ñuy woowee Bruno Xavier Marcel moom daal moom la ñu daal di écruer en même temps que entreprise bi ñuy wax ñaar Njaay Global Business Group représentant ba ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni euh, bokk nañ fa ñoom ñëpp jamono ji daal yoon daal dina leen di cerner ngir leeral mbirum 500 millions yi. ngir leeral mbirum. booba yiif waaye nag booba yiif amee naa lu jar a leeral la cinq cent millions moom fu mu réer war nañoo xool ñu ko sékk hôpital Amadou Sakhir mbay de Louga su ma jumul foofu la soxna si ñàkkee woon bakkanam fi mu toll ni am na ay décret yoo xamante ne ni génn fas yéene dal ci seen ndodd ginnaaw tiis ak métit ak nakaar bi nga xamante ni xew na fa bu yàggul dara Omar cas bi na waaye mi ngi commencé am détournement de situation ndax nag yoon dafa jokk ngir toppee ñenn ci sage femme yi monté woon garde ci service de maternité ca bés boobee euh, wàllum négligence à une personne en danger muy génn àdduna bu astu soxna bi jamono ji nag travailleurs yi nekk ci service bu maternité bi yëpp dañoo daal di croiser seeni bras ndax ñeenti nit yi nga xamante ni dañ leen faa tegee loxo ñaar ñi ñu bàyyi leen ndax dañoo wan lor ba seen euh, biir daal di diis ñoom nag ñoom ñoo daal di décréter grève de 72 heures maanaam ñetti fan yoo xamante ne dañ koy daal di grève lépp loo xamante ne wàllum soné la rawatina sax ca diwaanu urgence waaye nag Amina Ndiaye ku def erreur war koo mën a fay. ku def erreur war koo mën a fay ñoom jamono jii dañoo jog ngir bras de fer ak euh, nguur gi waaye tamit bras de ak justice ndax jàpp nañ ni dañoo bëgg a sacrifier yooyee sage-femme alors ko lu jig njàkk nguur gi mooy njàkk. alors que lu jig njàkk nguur gi mooy njàkk bu ñu ko waxee nag peut-être amuñu ay matériels yi nga xamante ne nii war na. amuñu ay jumtukaay yi nga xamante ni war na kon ku ci nekk na jàppale sa moroom ñu mën a liggéey réew mi réew mi mën a jëm ca kanam te bañ a jaayante doole record daal di ñëw ak ñun ci ki nga xamante ne ni Amina moom mooy Amadou Gallo Fall président basketball Africa League mu ngi yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci doomu réewam mu ne fi mu toll ni ñu ngi ci yoon bu baax bi waaye bu ñu gënee dolli dina gën a neex. loolu la wax nee na làbbaliwu fas taxut a fas a raw léegi dañuy door di dolli cere yokk ñeex rek loolu moom mooy nekk kàddu yi nga xamante ni uh, wax na ko gën a làbbaliwu fas bi donte sax ñoo ngi ci yoon bi waaye nañ gën a yokk cere uh, dolli ñeex ngir que ñu gën a mën a jëm ca kanam ci li nga xamante ni moom moo di wàllum basketball rawatina ci Ligue Africa bi. am na solo Premier League Sadio Mané meilleur buteur Sadio Mané tolloo na ak ki nga xamante ni moom mooy Giggs. waaye nag mi ngi def ay liggéey yoo xamante ne ni Amina liggéey yu am solo la ci dernier temps yi. buñ naan Sadio Mané daaw xawoon na bàyyi loxoom ci li nga xamante ni moom moo réalisation yu mu def kàddu yooyu nag déglu na ko ba tax na ren ji dafa daal di rek redoubler d'effort redoubler d'effort wala tripler d'effort sax la ñuy wax ndax Sadio Mané bépp boor boo xamante ni dugg na ca ca wàllum compétition fësal na ci boppam bu baax a baax a baax jamono ji nag meilleur buteur la ñuy waxtaanee Sadio Mané égalé boppam ak Ziggs waaye mun foofee képp koo xamante ni bëgg nga ko nga sopp nga ko wala nga koy gis di ko seetaan lak jamono ji ñëppa nga koy duut baaraam te naan Sadio Mané incha allah rabbi dara mënu koo teree doon euh, ballon d'or lu dul suñu borom. yàlla na ko suñu borom bi jox bu dee ni moo gën ci moom parce que jox ko ko te gënul ci moom itamit ñu ñun bu dee ni moo gën ci moom yàlla na ko suñu borom bi jox keneen ki nga xamante ne ni mois d'avril bi lëndëm na lool ci ay bëtam muy Edouard Mendy ak Chelsea 13 matchs wala 13 buts ci 4 matchs yaakaar naa ni c'est treize bi ci 4 mars match ba tax na daal Edouard mel ni jamono ji moom ci lëndëm la nekk ci guddi gu ba setagul la nekk ndax ñenn ci euh, fans euh, Chelsea moom la ñuy dut baaraamu ma jàpp nañ ni daal dafa bàyyi loxo ndool ci compétition bi. ba encaissé ay bi yu ñu toll gis nañu diggante Chelsea ak Real Madrid Benzema euh, trois bi yu nga xamante ni dugal na ko ci kanamu kii nii di Edouard Mendy waaye nag carrière moo mel noonu des fois dafay am des hauts et am na solo Amina Ndiaye am nañu nag benn match de retard seen diggante ak Manchester City mu nekk match boo xamante ne nii tamit match bu ñuy xaarandi la buñ ko ci xaarandi sax moom ci jëm boppam. journal bu suñu làmb daal di ñëw ak ñun ci ñaari frères yi Balla Gaye numéro 2 ak Sathiès les deux fils de Double ñu ne est ñoom ñaar nekkuñ ci danger ndax Sathiès war na jàkkaarloo ak Reug Reug Balla Gaye numéro 2 war na jàkkaarloo ak Gris Bordeaux. Sa Thiès rëg-rëg Balla Gaye Gris doo ñaari combat yoo xamante ni incha allah bi mën nañ ni yàgg na yàggatu yàggatul mën nañ ni euh, bés day ñëw rek ñu daani la tey jii la diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux war a nekk combat boo xamante ni nag combat de tous les dangers la nar doon dëgg la ñu ni Balla Gaye de en danger waaye tamit nag fu mu nekkee en danger adversaire am nekkee fa en danger Sa tamit mi nga xamante ni dafa jël ab gone daal di koy jox euh, chance am ngir mu daal di prouver bu bàyyee loxoom rek euh, ba rëg-rëg ci kawam nekk en danger ci li nga xamante ni moom moo di carrière am foofu la defee analyse bi rek ba ni de deux euh, fils de Double Less en danger waaye nag danger boo gis nag buñ ko prévenir moom mooy gën ñu guérir ko. am na solo Amina Ndiaye moo tax journal bi nañu bombardier Eumeu Sène et Gris Bordeaux ces trois baobabs qui résistent au temps maanaam ñoom ñetti ñëpp ay guy lañu yoo xamante ne nii ñu ngi taxaw taxawaay bu dëgër ci làmb ji. taxawaay bu dëgër dëgër la ñuy taxaw ci làmb bi ñoom ah, ñett muy Bombardier di Eumeu Sène di Gris Bordeaux donte sax des fois ñu am jafe-jafe ci làmb waaye teewuñu dañuy accroché wu bu baax a baax baax looloo waral ñu duppee leen les trois baobab qui résiste au temps gis nañu Bombardier jaar-jaar bu yaatu bi nga xamante ni am na ko ci làmb waaye teewul li mënoo tëdd kenn te tuddoo Bombardier ci làmb Eumeu Sène tamit nag am na ay des bas ci làmb waaye teewul ni marqué na ay empruntam ah, kii nii di Tigre de Fass actuel ñu koy wax Gris Bordeaux moom tamit nag comme ñu ko gisee rek des fois nga gis mu daal di def année blanche yoo xamante ni bari na lool waaye teewul ni fu ñu tuddee lampam nag ñëpp daal jóg. ñëpp daal di jóg yaakaar naa ni Amina Ndiaye loolu moom moo gënoon a fës ci xët yi tey. waaw li lañ leen indi loon ci seen xibaar bi de presse jox leen dig ba. ba ak jàmm incha allah mbokk yi jërë ngeen jëf.